ñaar fukki junni jox ko kees yëpp kees yi nekk xombal yaakaar naa ne kees yu baree bari am nañ ci bi loolu jàllee aussi yëkkati nanu une enveloppe de vingt millions toujours avec l'aide de la même banque jox ko les femmes de xombal mais loolu li ñu ca jublu mooy jigéen mënal boppam ba jigéen dootu soxla muy tàllal loxo liñ ca jublu mooy danu seetlu jigéen ñi dañu sonn fépp fa mën di dem da nga leen gis ci jafe-jafe te loolu nag mu nekk loo xam ne lu du metti la mais malgré tout nag wax dëgg yàlla financement yooyu gisuñu réellement mu am impact parce que dañ leen ko jox fekk organiser wun leen bu fekkente ne organiser wu leen loo leen jox ñu séddoo ko mais duñ ci liggéey bu fekkente ne également formé woo leen ba xamal leen ni nu war a liggéeyee ak lan lañu war a liggéey mais boo leen joxee xaalis aussi xaj na doo la ngay ciy séntu doo ko ci am moo tax cette fois ci ñu ne dañuy commencer d'abord former jigéen ñi formation yi dina tàmbali ci semaine bii par ay groupe la ñuy jël waaye dañuy commencer aussi organiser jigéen ñi à travers des structures yu ñuy wax les cellules des femmes du RASAT au sein de chaque cellule nag ñu fexe ba nu am fa GIE boo xam ne day ëmb ñëpp GIE boobu mooy yor wàllu koom-koom bi jigéen ñi ci li nga xamante ni mooy seen liggéey ci loolu la leen di jàppale ñu wax ne nag dañu fas yéene cette fois yi collaborer ak ñeneen yi yeneen banque yu ëpp yooyu doole pour ñu am une enveloppe de cent millions ci kattanu borom bi loolu waxtaan nañ ci ba juboo ba fan yii di ñëw incha allah loolu dina disponible moo tax ma ne woon Ousseynou nanu accéléré accéléré mise en place des cellules du Rasad comme ndey nga leer jotul na am ñu ne nañ fi ñëw lu mu gën a gaawee bëgg nañu nag fii ak le onze parce que le 11 la ñu préparé pour def meeting le 11 googu bëgg nanu bala muy jot lépp disponible ba nga xamante ne à partir du 12. financement yi dina mën a dem ci jigéen ñi bëgg nañu également balaa le onse incha allah ñu organiser jigéen ñi ba mu am un bureau boo xam ne mooy coordonner l' ensemble des femmes de Xombol da Ndiéyène Sirah de Touba Toul après dinañ génn foofu pour dem Ngoundiane dem Thiénaba dem partout dans le département de Thiès mais doonu ne fii ci suñuy mbokk foofu la ñu tàmbalee ndax ndaxte bay ci sa tànk waaye nag Ousseynou dafa am une particularité ndaxte dañuy wax ne ku bindoo ñi tama ñu tëgg leen ñaari boor ndeng leen nag loolu damaa dal ci ñoom moo tax moment bi ñu doon joxe yeneen cellules yi cinq mille ndeng leer ci kattanu borom bi un laa leen indil Daouda dama bëgg ñu wut ci ay këyit mooy benn nañ ci wut ay kayit GIE boo xam ne dañ koy reconnaître nga xam ne lépp lu may joxe foofu lay jaar waaye du yem ci man kese lépp loo xam ne day jóge ci nguur gi ñu koy dimbalee jigéen ñu fekk na am ngeen ay kayit yoo xamante ne di ngeen ci mën a am accès loolu tax kayit yi moom mooy jiitu loolu ma benn ba ci des na Daouda fii ci Ndingler bu ma sañoon ñëpp bokk ci parce que bëgguma ñu xàjj kenn parce que kenn ku ne damaa waran man ma dem sa biir kër am lu ma la defal mais comme yàlla dogal na loolu day jafe mais nanu leen organiser mu am ñu ko jiite mais nanu fexe ba jigéen ñëpp ñëpp xale ak mag na ci ñëpp bokk ndaxte réseau des amis ay xarit Ablaye Tine bu nu dajee ay mbokki Ablaye Tine caloñ te fii man ñëpp laa bokkal dama ne foo xamante sama yaay fii la fii fii la dëkk waaye sama baay aussi fii la dëkk ndax waa Tireen a ngi nii kii nga xamante ne nii moo doon wax di ajuma moom sama baay la te man am naa yaakaar ne bu li Ousseynou doon wax Ousseyn nee na bu nu tëggee ngàcca poccal bu doon démb la dañuy jekki-jekki buur yi tëgg na dëkk bi ku fi fanaan dib jàmm loolu da bu amaatan tey ndengaleer gii laa jëm si man te bu ma fi ñëwee raw kon nag Ouzin fii laa bokk fi laa bokk ci ci yaay fi laa bokk ci baay kon kenn gënu ma fi bokk moo tax lépp loo xamante ni nit da koy defal waa ndengaleer man mii nga ko defal sàng dégg naa ñuy wax ay sey bu ma señan ki daa xafu ci àdduna bi ndeng lay dëkk bu ma señan ki ëpp xaalis ci àdduna bi ndeng gi lay dëkk yàlla dogal na nag ndombaak tànk gu gu gu gu gu carte joxe ndombaak tànk koo xam ne aw carte ko joxe ci meerob xombal bii laa ko amee bi may ñëw fii ñaari at ci ginnaaw di sàkku ngeen jàppale ma fii ci mbooloo mi ak ñi ñëwut am na ca ñoo xamante ne ni voteel nañ ma bon ma gañee fii la ci xombal ñii ma àndal voté ci ñu gañee ma nekk adjoint au maire fii la ci xombal waaye bi may wut ndomba gi waxaan naa ne benn dërëm du jóge ci maire bi dugg sans poche du doon carburant du doon indemnité du doon benn parcelle bu maire di joxe ma am ci yàlla dogal na ba fii ñu toll amul benn dërëm boo xam ne jóge na ci maire xombal dugg ci sama poche amul benn avantage boo xam ne maire xombal amee naa ko fa waaye lan lu ci bëggan mooy naka la ñuy def pour jàppale nag sunu askan lii mooy ndombak tànk gu ma amee ci kat li ci des nag samay relation ak si samay liggéey ci wàllu liggéey parce que da yàlla dogal na ñuy liggéey ci nguur gi lu jiitu le président Macky Sall di ñëw au pouvoir nii la mbir mi demee. njëkk a waxal ba pare ndax dafa am lu ñu yónni woon fan yi yëpp ñu di ko dox te dafa laaj ñu wax ko jigéen ñëpp dégg ko xam ko ndax fan yi yëpp. ci dëkk yi yëpp la ñu di dox maanaam ñun ñi ñu placé loon euh, euh, kii ñi ñu yóbbu loon cent mille pour ñu commencé liggéey ñëpp bi ñu demee ba dugg ci quartier kii village yi fépp fu ñu dem rek positif lañ fa jëlee mooy lan bi ñu yeggee dañoo def jigéen ñi ku nekk bu ñu la laajee nee nga liggéey nga ba yaa ci ay 1 million ñee ngi ci 2 millions ñée ngi ci ma maanaam ñun daal satisfaction lañ jëlee foofu yépp ñun ci ñooñu waaw satisfaction daal lañ jëlee foofu ku nekk suñu demee fekk nañ nga liggéey ñaareel ba yéen da ngeen ne Ablaye dafa seen mbokk la Ablaye bokku leen ko yéen kër Ablaye ñun ñoo ko moom ndax Ablaye ku yaru la ku am ab yar la ku yëg nit la Ablaye du la defal ba kenn xam ne defal na la soxlawu ci dara ñi ñu defaloon montage ñi ngi monté loon cellule ñëpp keroog ba ñuy dem dañoo yóbbu jox cent mille francs leen jox leen ko xam nga lu tax mu ne bu leen laal xaalis bi ma leen jox damaa bëgg lu ngeen liggéeyee moom ko cent mille yi jël leen ko togg ci mbaxal mu ngeen toggee mbaxal togg accueillir seen ay gan toog lekk xam nga loolu ku baax rek moo koy def waaye mënoon na leen a bàyyi ak seen xaalis ñi def ñun fan yii yëpp tooguñu ñu ngi dox ci village bi dem di ñëw kon waa Ndingler am ngeen loo xam ne na ngeen ko jàpp ni ko ñëpp jàppe su ngeen ko jàppee ni ko ñëpp jàppe rek di ngeen am li ñëpp am dégg ngeen li ma bu baax su ngeen ko jàppee ni ko ñëpp jàppe di ngeen am lu lu weesu seen njort ndax Ablaye dimbali jigéen ñi xam naa day def di def da baa Ablaye Diom mii doon wax léegi nee na xanaa yéen femme femme rek ngeen di wax du ngeen wax homme nag mu ne ko femmes yi Ablaye ne ko femmes yi ñoo yor kër yi na maanaam femmes yi mooy jigéen mooy góor ñi rek ndax ñoo yor lépp daanaka am na góor ñoo xam ne sax léegi danoo far ko sax seetaan jigéen ñi rek ñuy liggéey di andi kon xam nga kon jigéen ñi ñoo yor kër yi loolu tax Ablaye doon kuy jàppale kon nag lim leen di jàppalee nangeen jàppale seen bopp ba yàlla def bu leen ko defalee ba pare bu del si waatee fii ngeen am yéen lu ngeen wax ngeen fexe ba bu leen nekk jël ndaara ci seen ay moroom ndax xaalis ku la ko jox xaalis dafa nooy boo ko yoree mën nga cee lekk ay ginaar waxuñu ngeen toggal ko góor ñi ginaar de dañ na ngeen liggéey ngeen jëf ci loo nga xamante ne bu ñëwee su leen nee lu ngeen li ma leen joxoon anamu ngeen ne ko ñun kat li ñu joxoon mi ngi nii lii lañ ci def vraiment ñun avancé nañu am nañu bénéfice am na loolu lay laaj loolu la bëgg forcé wut nag ndax xaalis bi da la koy may. yaa ko moom waaye duñ la ko may rek nga jël ko lekk. réseau des amis des amis et sympathisants de Abdoulaye Tine dafa am liggéey bu ñu sumboon ci ay fan yi passé muy ñuy organiser jigéen ñi di installer li ñuy woowe les cellules des femmes du Razat kuréel yi nga xam ne moo ëmb jigéen ñi nekk ci biir Razat dinaa ko leeral bu baax nag. dañoo bëgg xam Razat dëgg dëgg dëgg fii ci Ndingler ñan ñoo nekk membre ca dëgg dëgg ànd ak le président Abdoulaye Tine ci biir Razat ca dëgg dëgg laa wax nag dañoo bëgg a xam mon frère Daouda fii ci Ndingler ñan ñoo ànd ak Abdoulaye Tine teguñu tànk fii teg tànk fee teg tànk fële. loolu moo waral ñu def ko ca ginnaaw raay est def ko ca Kër makodu def ko ca Njaayen Guy def ko ci Njee def ko ci Aaneen def ko ci Ngay def nañ juróom benn cellule yoo xam teg nañ ko pour xam exactement ñan ñoo ànd ca dëgg-dëgg ak monsieur le président du Razat Abdoulaye tin loolu nag moo waral jeetaay bi tey mon frère Daouda mën naa wax ne fii ci Ndingler yu ci gën a bëri muy jigéen ñi ànd nañu ak le président Abdoulaye Tine dama si joxe nag ay firnde parce que looy wax na nga am fi ko teg li ma teg fii ma wax li ma wax nii mooy à chaque fois bu Razat soxlaawee à chaque fois bu Abdoulaye Tine soxlaawee ay nit lu mën a doon maa ngi wat ci Serigne Saliou dawda mi xombal ak li ko wër dëkk yi wër xombal yépp ndeng leer saa yuñ teew may gën a bari def nañu ay te débat balaa élection yi passé di jot local ya waaye te yu ñu defoon yépp bu Ndingler moo ci gënoon bari nit moo ci gënoon a neex moo ci gënoon a neex daggan loolu nag moo tax ma ñemee wax ne jàpp naa ne ñi jigéen ñi ànd ak Abdoulaye Diouf Ndingler ñoo gën a bari ñu àndul ak moom buñ jógee ci installation cellule bii nii daañu yegg lañ ci des yépp président dafa joxe échéance date boo nga xam ne def ñu ne na ngeen fexe ba yi des yépp ñu monter ko fii ak le 4 novembre monsieur le président incha allah daañu def suñu kéemtulaay kattan pour monter toutes les cellules yi des incha allahu rabi fii ak le 4 am nañu yéene boobu kon bii suñu frère Daouda yàgg na ko sakku nag mais booy waajal borom doole da nga war a ànd ak doole. kii borom doole la moo tax ñu war a am doole doog a ñëw loolu nag dafa am jëmuwaay bu ñu paree ci installé toutes les cellules ci dëkk xombol yi ak gox goxaan yi wër xombol dañuy organiser jigéen ñi fii ci Ndingler dina am ñu fi jóge am ñu jóge ci yeneen dëkk yi pour ñu former li ñuy wax le bureau communal de femmes du Razat mooy bureau bu nga xam ne day ëmb xombal ak dëkk yi ko wër yëpp ñu bokk benn biro su boobaa Ndingler dina envoyé délégation am dëkk bu nekk envoyé délégation am quartier xam ne bu nekk envoy délégation am ñu former le bureau communal la coordination du Rasat ci commune u xombal yëpp ak li ko bi ci topp biñ fu jogee léegi gis naa ne bind na biro bi dafay am ay kayit ay récépissé incha allahu rabbi lu tax parce que dafa am fu ñu jëm wax naa léegi dañoo bëgg a xam ñan ñoo ànd fii ci Ndingler dëgg-dëgg ak Abdoulaye Tine am na lu mu nam tàmbale na ko si jigéen yi bëgg koo wéyal bëgg nag wéyal boobu nag mu tegu ci yoon tegu ci yoon bi mooy bu ñu jógee fii président dinañu jox daaw dinañu jox carte bu président bi ak bu secrétaire général bi ak bu trésorier bi pour ñu wutal leen récépissé ngeen nekk une association légale bu am ay kayit